comme téléspectateur bu site bu am solo bii di Sunugal 24 mbokk yi mu mel ni ñu ngi dellu si seen jotaay bu am solo ci weeru saxru ramadan al mubarak di seen jotaayu jotaay kër diine yi mbokk yi tey ñu ngi fii tey ci waa kër njabootu Cheikh Islam Baye Ibrahim Niass mbokk tey mu mel ni tey ñu ngi fas yéene ànd ak tey jëmm ju baax ji lee di tuddkatu yàlla bu mag di Cheikh Madiara Niane mbokk yi ñoom lañuy moom lañuy ñuy fas yéene dalal tey ci jotaay bi nga xam ne mooy sunu ubbite bu njëkk ginnaaw bu ñu baaloo ñëpp àq waaye tamit di baal ñëpp àq ci weer bu sell bi di weeru shahru ramadan al mubarak di ziar bu baax a baax xalif général des Niassène ñu koy nuyuwaat bu baax sunu bàyyi Cheikh Ahmed euh, Tidiane Ibrahim Niass di ko ñaanal yàlla sunu borom guddal fanam doole ko defal tawfiix ak taysiir ak najaaxa defal ko saxab daareeni ci barke yonent bi mu yàgg lool yàgg lool ci kanamu njaboot gi lay Cheikh Madiara balaa ñoo def dara rek saa su ne ni ngay dëgalee soppee yi nga xam ne ñoo ngi lay bàyyi xel rawatina tey téléspectateur bu Sunugal 24 asalaamualeykum uritu bi xayril xalqi xayra maraa'i nafasaka wal aswa wa kulla miraa'i wa hayyaja sawqi wal mahabbata waddana wa arraqani isnaam axluqi baa'i yu annisuni tirsi wa nixsi wa laxlaqi jihaaran wa qalbi unsuhu bi sifaa'i bàyyi ne muhammadu muxtaarul ilaahi nabiyahu alayhi atat ayaatuhu bi sanaa'i falam akfu ghayral mustafa lastu taaliyan siwa dhikri kuful malaama malaa'i halli diinu khayru dhikri wa sunnati allati anil mustafa saqat fatilka dawaa'i bayna nasba khilafin bayna taha wa khayrihi yaraahu labibu xayra haynu hamaa'i ayaa naasu qallul asla waxfu muhammadan wa ilaa tarawni dëxra jaada baraa'i bayna muhammadun xayrul aalamiina muhammadun rasulun aminun sussanaan wa sanaa'i فصيح بليق ليس ينتيق عن الهوى بل الوغي وتنزيل واقي السماء بين عليكم بحبل الله للعبد واثقا فنحجو يناوي ذكرى نحجو سقاء وإن قلت عز الورد نحجو محمد aqulu naam wirdi li nay li safaa'i famal wirdu ila zikru lillahi waxdahu tusalli ala almuxtaari xayri waraa'i bayne fama fiihi zikru shayqi aw zikru xayrihi fa wirdi li daayil habdu haynu dawaa'i ruwaydakumu laa tunkiru han jaalatin li baxyin wa udwaanin wa haynu jafaa'i wa qad balaga naadi wa ada amaanatan haza asol haadi duuna suuq bu dujaa'i wal aqlaamu qaadaatun bi qaffi nabiina li taxfu ladi yaxfuhu duuna miraa'i sawaa'un jaliilun aw haqirun famaa lanaa siwaa qafi dëxra saba masaa'i baayna ayaa rabba jibriilu amiinu fa sabbitan ala sunnati laadi quluuba ulaa'i بين ولا يبتلين الله بشيق والهوى نعس على البيداء اليوم اللقاء ولا يك قصر الدين هذا محبنا بل اللب لب لب ما ضغطائي سرى طيفه وعنا وكدت لهبه أتين استياقا والغرام بلائي baay ñas ne wa kullun wa laylaahu wa barhaamu mubtalan bi ahmada xayru naasi haynu bahaa'i wa min hasadin jaaru alayhi wa innani mubarrizul aqraani awaana sibaa'i وقد تم فنهي عند مخدي وقد هنت جميع رجال الخائب تحت قدائي فما قط في الشرق والغرب فرفدا إلى مكة إلا لسم سسائي والإملاء وحين اليوم حين محمد سرى سرا في هيكلي وروائي وأغل زماني كلهم فاض راقيا سوى من خلا نخجي أسره وائي وما قلته صدا ودعوا حنيدة فابت جميع الفائسين ولائي بين وبين يرفع الجور العظيم وإنه بفيد ينال الدين الراف لوائي بين ومن سياتي قبيل مماته ومن سأناواه كأغلى سقائي ومن رام إطفاء لنور إلهنا أبى الله أن يطفئه رغم هدائي سأرقم بالماء ضلال أنو فمن يرى سيرك والتسليس وأقل قلائي هدمت الذي قد أسسه وإنني بالسر المقفى لا يحد بنائي رموني ومغنال مرادا وإنني أمسق بالماء جموع دائي سيقسم هذا الجموع حقا وإنهم يولون أدبار الرقاب إمائي يصومون دائما للقديم وإنني تطرس بالمختار قبل رمائي وقد سخرف الأقوام مكرا بندوة وقدت كتاب قصد فديائي وجاءوا ببدر قيلهم ورجالهم وجاءوا ببغي زاهري وبائي بين والمن والماهي تواف ببيته بمكة يوم الفتح واقتضائي وعن منون نظرا ديانة دائما بكل بلاد الله طول بقائي كن صلاة وتسليم عليه بقدره وآل وأصحاب وأقلق لائي لا إله إلا الله لا إله إلا الله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 taxaw nga bu ma ne mën naa ne ci àddina bi ndax yàgg ngaa dugg itam ci média bi di yëkkati di tudd euh, bàkk bi nga xam ne muy bàkk sunu borom tabaraka wa di kalimatu laa ilaha illallah di la santaat bu baax di la ñaanal yàlla sunu borom wéral kàddu gi ci barke Cheikh al Islam Baye Ibrahim Niass Cheikh Madiara ñu ngi lay bégaat ci bu baax a baax a baax a muy jotaay bi nga xam ni macha allah euh, yàgg nañ ko nam waaye tey la ko suñu borom tabaraka wa taala nammaat ci weeru shahru ramadan al mubarak ginnaaw ba nga yëkkatee bàyyi la tamit nga dallu mu mel ni tamit dañ lay joxaat sa ñaareel nuyoo nga mu nuyu téléspectateurs yi jàkkaarloo ak yow mu mel ni tamit am na euh, public bi nga xam ne tey ñëw nañ assisté euh, muy ay kilifa yi nga xam ne tamit toog nañ fi euh, Cheikh Madiar di la nuyuwaat. waaw aouzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala sayyidil wujudi wa basril wujudi wa sirril wujudi wa wujudil wujudi wa madadil wujudi sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam wasalaatu wasalaamu fawqa taaxaazil buraaxi summa aalin wa sixaabin kulluhum naafi nifaaxi ayaa naasu xallul hasla wax fa muhammadan wa ilaa taraw nii dexra jadda baraa'i jamoo sarianti ma tariqati ila alxaqati xoral wasixa wa zaana ilaahi dexra nafsa laa ura amilu ila ma laysa fi sarxi jaahiza tasallaytu an layla wa mayla wa tandami bi taaxa aminillahi xibbil munawaayi kafaaka sanaa'i daxwatan wa mataaliba alhamdulilah ñi ngi sant yàlla beneen yoon moom mi nga xamante ni jëmmam dafa santu melom sant ay léppam sant ku nekk ci moom doo def lu dul nekk kuy sant ñi ngi sant yàlla bu baax a baax di julli ci yonent bi mooy seydina muhammad sallallahu alayhi di ndokkeel mboolem jullit ñi ci weer bi ñu nekk muy weeru koor di ndokkeel axlu tijaan yi yëpp ñu ngi leen ndokkeel rawatina imaamu tijaan muy cheikh tijaan yi nga xam ne Baye wax na ko waxaza tijaan yi mumit rabbaani mumit boobu mu wax ko rek doy na jaami yàlla yi ñëw boot ci ginnaawam ndax cheikh tijaan yi mooy ki nga xamante ni mooy tëbb ñëpp di ndokkeel mboolem tijaan yi ci biir lool di ndokkeel mboolem taalibe bàyyi fu ñu mën a nekk nga xamante ni Baye moo ñu takkee moo ñu boole te lim ñu wax mooy jamoo sarianti ma tariqati ilal xaqati onal wasixa da ngeen rafetal seen sariant su ngeen paree na ngeen aw ci yoon bu jub bi mooy yoonu Cheikh Tidiane yi su ngeen paree na ngeen uti xam-xamu xam yàlla mu ngi xam-xamu ixsaan mooy li nga xamante ni moom feeñoo na ko nekk imaam bi te programme yàlla la bàyyi mu ne su ngeen defee lii nag jàpp ngeen ci buumu yàlla gi ñu ngi ciy ndokkeel mboolem taalibe bàyyi nga xam ne topp nañu woon wow ni ko bàyyi su waxee di nuyu ñi nga xamante ni ñooy téléspectateurs yi nga xamante ni ñu ngi ñuy suivre di ñu seetaan à travers site bu mag bi du sunu gaal 24 rawatina ñi nga xamante ni ñooy sunuy mbokk ñii ñun ñoom lañ am ñoon suñu ñooy suñuy mbokk ñoom ñu ñu jege la lu tax ñun suñ sirru mooy seen sirru suñ ruuxu mooy seen ruuxu suñ jismu mooy seen jismu suñ xalbu mooy seen xalbu lii moo ñu takkee te amul lu gën a màgg lii waaw ñu ngi leen di ndokkeel ci njiit lii muy Cheikh kaatim mag la ku baax la ku yàlla oyofal la jaamukatu yàlla la boo ko gisee rek xam ko ñu ngi koy ndokkeel di ko ñaan yàlla tawfeex bu baax di ndokkeel Cheikh Sayid mag la ku ñuy conseiller la ku ñuy ñaax la muy jaamukatu yàlla moom it di ko ñaan yàlla tawfeex di ndokkeel Cheikh Babacar Thiam nga xam ne boroom xam-xam bu mag la jàngee Medina Baye Niass ñu ko Baye Niass ñu jàngal nañu faydu boo koy misaal mu ngi mel ni teen boo xamante ni xootaay gi jéggi na dayoo mënoo xam fu mu yem ndox mi ci nekk dafa fees du ŋacc mukk nga am gocc mooy buum boo xamante ni bu dëgër la boo demee Saalum ci teen comme que Dakar mii nuñ teen buum boobu lañuy ñuy takk takk ko ci baag muy dem di génne ndox mi mu ne buum bi nag du dagg mukk yaa ngi dégg ki koy xëcc di ko génne muy waxambaane boo toll ci digg dooleem ku sawar te du sonn mukk mu ne mu koy xëcc di génne mhm. ndox mi génn yëpp comme que du jeex ci teen bi mu koy sotti ci mbalka moo xamante ni foofa du fees ah xam nga ne kon loolu rëy bàyyi mu ne booy misaal faydu mhm. faydu loolu la faydu mooy li ñuy tuddee bëbb faydu nag li ko tax ñëw mooy njub jaam mhm. yàlla am njub ak lan ak taqwa ragal yàlla ak lan ak dellu ci yàlla mooy xam seen boroom xam bu wér ak lan ak mën a jaamu yàlla lii nag moo tax faydu ñëw su ko defee faydu Baye wax na ne moom diiru jamono doo gis mu wàcc sunna si yonant bi yàlla ñoŋal na ko bakkanam ba du def lu uteeg sari lu dafa wax ne euh, jam wa zaana ilaahi dëxra nafsa la ura amilu ila ma laysa fi sharhi diiru jamono man Cheikh doo gis mu ma def lu wuteeg sariyan kon lii moo indi faydu bàyyi waxaat beneen yoon isa saara xayru naasi surtout waraahu wa in xalla yowman fal masiru baxidu man yonent bi mooy sama lépp moom laa topp muy dox su doxee ma dox su taxawee dootuma dem dox amul faydu nag lii moo ko tax indi mooy li ma la wax mooy njub la euh, jaamu yàlla bi yóbbu ko ci boroomam mu xam boroomam mën a dund ak jaam yàlla lii moom di faydu te bàyyi wax na ne alxelmu huwal imam xam leen na xam-xam mooy njiit kon faydu xam-xam moo tax mu ñëw ngir yee jaamu yàlla yi lii moo indi faydu ci ci simili bu néewa ah, ma am laaj bu ma la laajaat tamit foofu mu mel ni euh, Cheikh Madiara muy tuddukatu yàlla intellectuel parce que damay dégg tout le temps booy wax euh, bu ñu déggee kàllaama bi xam ni euh, Cheikh Madiara def na jàng na bokk dugg na ci ba njàngum tubaab français loolu laa bëggoon tuuti nga wax ñu parce que ni ma déggee euh, loolu du loo parcourisé wax xëy na loo loo xam la. waaw alhamdulillah jàng man ta ñàkk jàng nañ bi ñu waree jàng yàlla dogal na jàng nañ français sonn nañ ci lool bi ñu amee bac on a fait l'université nekkoon nañ à la faculté des sciences juridiques et politiques en droit ni ko ñëpp xamee yàlla dogal na def nañ am nañ licence mu ngi suñuy loxo ñu teg commencé woon nañ sax master waaye yàlla dogal ak ay jafe-jafe yi demee noonu daal ak xëy na yàlla namutoon ci man réussite boobu noonu beneen yoon la ko namoon ma arrêté ko loolu sama suwaa bopp la ma dem waaye li nga xamante ni daal moo am mooy ne mooy yii nii moom yàlla da cee dimbale mboolem jaami te loolu la bëgg te loolu mooy li nga xamante ni moom moo moo am te moom la ñuy def nii yow ngay jottali om ko ci koor la nekk yoon ci bi dafa waxoon ne ki gën ci yéen mooy kuy jàng alxuraan ba pare di ko jàngale hmm? Le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et qui l'enseigne. Transmettez à mon sujet, ne serait-ce qu'un verset. ki gën ci yéen mooy kiy jàng alxuraan di ko jàngale jottali nag li ma wax man yonent bi sama xadis mooy ne euh, boo ko defee mook ay alxuraan gëne li ci nekk ñoo tolloo léegi nag lii nag jàmm bi da ko war a xam su ko defee ñun ci lii lañ nekk muy tudd yàlla di liggéeyal Mawlana Cheikh Ibrahima Niass yaakaar ci nag suñu lépp euh, bëggoon naa dugg ci point am solo euh, tuddkatu yàlla yi nga xam tey tey ci wàllu tey mën nañu nekk waa kër Cheikh al Islam Baye Ibrahima Niass toujours fa laa jëmee lu tax ma koy wax donc bëgguma dama bëgg lu leer euh, gis nañ ñi nga xam dañuy tudd yàlla dem ci diir mu mel nii euh, jot bi moyetu leen ko way laa tam bàyyi nañ tudd yàlla bi euh, dugg ci beneen wàll amaana moo xam ci wàllu lasraar bëggoon naa foofu tamit ñu waxtaan ci lu bëri ndax tey bu demee ba jamono jooju ñu ci bëri tey di tudd yàlla bi ñu doon tudd yàlla ndax bu ñu demee ba benn jamono ñu soxlewaat leen feneen loolu mu mel daal day mel ni tàmbalee na saxaay loolu bëggoon nañ ci xam dara. waaw loolu alhamdulilah euh, yokkute la Baye Niass boo àndee moom walla ku li leen di boo bëggee xam-xam ko am boo ko bëggul sax tëdd nelaw da koy am parce que mayam moo yaatu Baye Niass digaloon nañu nag lépp luy xam-xam ngeen ko sàkk ngeen wut ko waaye yooyu yëpp bu ngeen ko amee pour yéen la da ngeen ci jaruñu jëriñ ci ay jaamu yàlla waaye fa bu taxu leen a jóg ndax bàyyi li koy indi mooy jël jaam yàlla yi màngu leen def leen ay jaam yàlla ñu dem ci yàlla. su ko defee comme ni nga ko waxee posé ñu question boobu c'est une question pertinente boo xamante ni lu am la yow site bii ni yaakaar naa miin nañ ñooñ sunu gaal 24 mais boo ñu ci laajee nit dafa am choix kenn ku nekk yaa moom sa bopp am nga jël yoon bu la neex donte nag être libre ça ne signifie pas faire tout ce que tu waaw ah, parce que si tu fais tout ce que tu veux tu nuis nekkul da ngay dëkk ci kër rek dama fiy fay sama location heure bu ne mu yokk sama rajo ba mu sës di tànkal nit ñi déedéet léegi nag ñiy def loolu seen choix la toog nañ ñoom xay na loolu moo leen gënal ñu koy def ñu jël ko muy seen choix waaye dama wax ne loolu faydu bu ñëpp toogoon bàyyi tudd yàlla si karkat yëpp lu teree faydu na dem yàlla dana programmer ñeneen ñu mën ñoo ñuy tudd yàlla waaye du buñ toogoon ñëpp bàyyi ko dem uti lu leen neex na dama yëngatootuñ ci faydu du tere yàlla dina programme ay jaamam yoo xamante ni ñoom danañ danañ continuer mission boobu mission bi bàyyi moomu ko mhm. faydu bàyyi nekkul nekkul boroom waaye moom lañ def imam bi tariqa tijaan cheikh tijaan moomu ko waaye moom lañ def njiit bi dina mhm. ji yonent moomu ko waaye moom lañ def njiit bi programme yàlla la dafay dox mhm. lii nag su fekkee ne luy dox la yàlla moo koy doxal ñëpp buñ toogoon bañ a jaamu yàlla yàlla dana fi jëlee jaam yi fi nekk nii indi ñu leen gën ñu koy jaamu faydu Cheikh Ibrahima yi tamit ku yaakaar ne yaa koy doxal du yow muy sikkarkat ba mu mën a doon ndax ñun dañuy dem fu ne dañuy gis ñu ne léeg-léeg ñu dem gox boo xamante ni suuf si dañuy dëgg suñu tànk wàcc ci garage hmm. na bu taxutoon ak bàyyi ñes duñ mas a teew fii nii ndax xamuñ nit ñooñ xamuñ ñu ñu gis fa sikkarkat yoo xamante nii tamit ñu ngi leen door a gis hmm. kon c'est-à-dire que ne yokk ca mu ngi am bu ñëpp nag bàyyee tudd yàlla fay dana am ñeneen ñoo xamante ne ñooy tudd yàlla dàqa tudd yàlla ñooñ waaye alaa kulli haal liñ ci mën a wax mooy daal ku ci nekk tamit di ci yëngu na danga def nga rafetal parce que bàyyi lu rafet la lu taaru la ñun lii dañ ñu koo defetal muy meññet wu rafet lekkin bu rafet rek la laaj loolu la ñuy ñaan di ci ñaanal ñu ci nekk ñëpp. macha allah euh, balaa ñuy tëj ma euh, Madiara mu mel ni waxtu bi daanaka sax euh, dab nañu mu mel ni génne woon nga fi seede bu am solo. Euh, yaakaar naa la dala dalaloon naa la ci ay plateau sax laay wax yoo xam ni def nga ci plateau yam am solo euh, muy seede bi nga xam ni àdduna bi ñoo ngi ko doon xaar Cheikh Madiara kañ lay génne seede moo tax ba nga ko génne xam ni lii wax dëgg yàlla fi mu jaaw jaar na fi mu war a jaar euh, muy Nurul Bachar bi nga xam ni génne woon nga ko bu am solo mooy hommage bi nga rendrat ki nga xamante ni itam mooy sunu imam Assane Cissé di ko ñaanaat sunu borom taas ci barkeem mu mel ni génne woon nga fi yu am am solo Cheikh Madiara lan ngay xaar fan fan lañ lan lañ lay xaarewaat ñu ngi lay xaar ba léegi seede bi taxaw na d'accord euh, mais ma Madiara boobu ba léegi déggaatuñ ko te gars yi saa su ne dañ koy nam waaw loolu moom taw alhamdulilah boo ñu laajee loolu yow su nit nga ku ñu yàgg a nga damay ñaanal yàlla fu ma toll yow ku ñuy wax musaa bu Afia FM démb rek woona mu ñuy baal wante ak mu ngi dakaar TV léegi yokkute xanaa ku leen dafay am ci yéen waaw daaw ci heure yaa ngi woon ci beneen site yaa ngi ci bii gëñ naa ci yàlla ne bu déwénee ci heure bii di nga ma woone ma am naa fu ma gën a nekk fu gën a baax lépp wax xamante ni da ngay feeñ international donte lii dangay ngay feeñ international te ànd bu rafet ngay ànd ak ñoom du ngeen taxaloo mu ñaaw parce que kuy def lu baax yokkute nga bëgg waaw ñun buñ xëyee xam benn moo suba tamit amuñ yokkute ñu xam ne yokkuñ seede bi nag yàlla moo dogal ñu génn ko ngir bégal ci képp kuy jullit ndax bàyyi wayam yi looloo ko tax a jóg tagg yonent bi kon kuy jullit rek déggal bégal nañ ci ndax way nañ yonent yàlla Muhammad foofu ci biir loolu bëggal nañ taaliba Cheikh Tidiane yi way nañ Cheikh tijaan ci biir lool ci waa kër Baye Imam Hassan Cissé nga xamante ni ku mag la woon jël nañ way ñi def ko ci moom bëggal ci képp koo xamante soppe Imam Hassan Cissé nga lii nag am nañ ci satisfaction bu baax am nañ ci tawféex ndax yàlla dimbale woon nañ ay jamono amuñu woon suñ seenu bopp dem nañ ba am suñ seenu bopp suñ YouTube nga xam ne boo tapee Madiary Niane lépp luy programme da nga ko fekk lii moom moo ko jur kon loolu tawféex la jamono bii tamit ñu ngi waaj lu rëy rëy rëy waaw ah, bu tax lool lool loolu dañ ci ñamal tuuti. waaw loolu lu rëy la. parce que lii man yàlla moo dogal dama koy wax. su ma doon wër nit ñi di ut émission. billaahi lazi laa ilaaha illaa wa saa su nekk ma émission. bi nga bi may woo. samedi la je crois. da nga ma woo ne ma ndax Baye Mass woo na la Cissé. ma ne léegi lañ coupé. mu ne ma say wax la ma doon wax nga ne ma dimanche dama la bëgg a tara ma ne yow samedi yaa ngi ma woo samedi vingt et une heures yi dimanche suba si amul saa loolu mënta nekk ça sera impossible léegi kon ñu waxtaan nga ne ma nañ ko def euh, lundi lundi bi kon c'est-à-dire ne ñi ma xamee ni ma la xamee tamit noonu laa xamee ñeneen léegi nag jamono day dox lu ne dafa am lu muy doxee am na loo xam ne tànte woon nañ ko jéem ko def donte suñ doole bëriwul ndax génne def production lu métti la ak lu jafe la foog nga am ñu lay taxawu ci côté yëpp nag ci côté yëpp bu ko defee ñi ngi waajal loo xamante ni bu génnee waxuma la jullit waaye kuy taale yu bàyyi da nga ci am lu rëy ndax ñu ponkal lañ ci àndal ñu mag a mag a mag Ling Star Ling Star lañ koy wax xaw ma rappeur boobu nga xamante ni mooy def mooy def lii bi eh, tente bi def ay clip voilà label boo xamante ni bëgguma sax tudd tur label boo xamante mais dañ ci ñamal tuuti rek waaw loolu dañ ko def wa taalif la bu ngand boo xam ne dañ ko def ngir ne jullit ñi dañoo war tijaan yi dañoo war a ànd taalibe Baay dañoo war a ànd dama seetlu mboolem ëtt kër yi say xarit lañu mën nañ ne sax sa seede yi boo xoolee tey si mboolem yeneen mboolem ëtt kër waxuma waa kër Cheikh Islam Baay Ibrahima Niass mais am na ñoo xam ne dañ koy fàggu ndax cofeel gi ñu am ci yow seen relation waaw loolu lu rëy rëy yàlla mooy def loolu mooy dogal ndax ñun noonu lañ mën a doxee damay wax ne ñun àttan nañ ñëpp waaye kenn attanuñu waaw fu ne mën nañ fa dem fu ne mën lañ leen fréquenté waaye ñun fuñ juux nga xam ne juux nañ fa. macha allah waaw Cheikh mu mel ni sax ci benn simili dañuy may euh, Cheikh Tidiane foofu moom ngay tëjee tàggatoo mu mel ni waxtu bi li ñu jagleeloon ci waxtu sax daanaka xaw nañu xaabaabal moom rek laa bëgg nga barkeelu ci rek tëjee ko jotaay bi ñu jox dig daje yeneen jëmmi jamono ci yeneen plateau incha allah bismillah. wa huwa yarnu maqaama kulli faridin وبهذا تفاوت الحسماء منسرا سنة الرسول بغرب بعد أن قد أماتها القدماء وتوى والد الإيمان لسلم أتى الأوباء وتوى والد الإمام لست بعد عصر لما أتى الأوباء عن جبا خير سيد سممات ليس مرأة ومرأة قيداء رضي الله عنه jërëjëf Cheikh Madiara Niane jërë ngeen jëf mbokku téléspectateur bu Sunugal 24 mbokk yi di ko santaat bu baax a ma Cheikh Madiara di ko ñaanalaat yàlla sunu borom wiiral kaddu gi doole ko defal tawfiix ak taysir ak najaaxa defal ko saxat daaree ni ci barke yonent bi mu yàgg lool di bégal askan wi di yàgg lool di bégal taalibe yi di di bégal lool yàgg lool di bégal jullit yi kon di jàmbaar lool di tuddukatu yàlla bu mag waaye dama naan ko tuddukatu yàlla intellectuel ndax ba mu demee ci biir jamono ñëpp xam nañ nekkoon na ci wàll ci kàllaama français xam nañ ci lu baree bare ci wàllu université waaye loolu yëpp da koo bàyyi topp tudd yàlla bi nga xam ni saa su ne ma ne muy taw wala muy naaj foo ko woo dee bàyyi lépp ndax moom rek moo man rek maa sañ ma programmé sama émission wax ko mu bàyyi lépp daf ma koy defal ndax maa moom dañoo yàgg maa moom tam xam naa yéene gi mu am ci yoon wi moo taxit saa su ne sama émission yu may def ci plateau yu ci bare bari ci waa kër Cheikhul Islam Baye Ibrahima ñas ki gëm jëlee jëm ju baax jële ci moom laa koy njëkkee kon ñu ngi lay ñaanalaat yàlla bu baax di nuyu mbooleem ñi nga xam ñoom ci plateau bi ku lim da ngay daal di jum jaar nga ci ñoom ñëpp mbooleem soxna yi nga xam ne tabarkalla ñu ñu dalal fii ci euh, diwaanu Padois ñu ngi leen ñaanal yàlla suñu borom tamit a baax Cheikh Katim moom it ñu ngi koy ñaanalaat yàlla suñu borom jàppale ko macha allah di jàmbaar moom it di borom xam-xam macha allah euh, mbokk yi ñu ngi fas yéene yëkkati jotaay bi si leen beneen numéro incha allah nekkoon seen jotaayu ci këru diine yi waa kër njabootu Cheikh Islam Baye Ibrahima Niass di nuyuwaat ci wàllu éclairage bi caméra bi junior Cheikh junior ñu ngi lay nuyuwaat di la ñaanal yàlla suñu borom defal la tawféex di nuyuwaat bu baax a baax ci wàllu montage bi ak réalisation bi itam personnel bi soxna pël itam ñu ngi koy nuyu bu baax mboolem personnel bi ku lim da ngay daal di jóg ñoom ñëpp ñu ngi leen nuyuwaat bu baax a baax mbokk yi seen wàllu présentation bi ngeen ci doon ànd ak seen mbokku taalib bi Mouhamadou Lamine yàlla mii borom ja jàmm gi te it ku mu jàmmal nga daal di am jàmm yàlla